tey jii ci bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel garab te muy fanweer ak juróom-ñaar ay at ci ren du ko Sénégal tàmbalee ba tey ren nañu taamu garab gi nga xam ne ku ne xam ne njëriñam muy guy pulaar yi di ko wax bokki sama mbokk séeréer di ko wax baag Eh, wala yeneen xeet xeet bu ne am na nga xam ni moom nga woowee garab gi te ku ne xam ko si yaatuwaayam waaye tam si eh, li muy dund nga xam ne léeg-léeg dana ëpp ñetti téeméer ñetti ba léeg am na ñu wax dana dem ba junni at wala sax ñaari junni at kon muy garab gu am solo te tam dañ ko war a jëmbat suuxat ko moo waral ñu ñëw fii tey jëmbat guy gi may ñaan nag képp ku nekk ci senegal nga bàyyi xel si ne war nañ di jëmbat ay garab moo xam garab bu mënti doon moo xam garab buy meññ la ay doom wala garab buy joxe ker wala garab buy faj loolu yëpp war nañ ko en tout cas di def ngir aar suñu bopp d'abord si feebar yi waaye itam ngir am ngelaw loo xam ne buñ koy noyyi dina nekk ngelaw lu am sol te it garab yi ku ne xam na ne li ñuy wax garab bu ñuy fajoo lépp mu ngi jógee ci garab yi donc ay santeer la ñuy def rek ba am ay garab donc plus am réew am ay xeetu garab plus réew moomu mën a andi en tout cas ay ngëneel ci wàllu wér-gu-yaram ak lépp lu mel noonu may sant nag ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi di waa ministère bu environnement ak protection de la nature ak ay direction mu mel ne forêt wala agence bu bees bi ñu taxawal ñu tuddee ko agence de la reforestation et de la grande nouvelle verte seen liggéey am na solo te njëlbeen bi rafet na lool maa ngi wax ministre bi léegi mën nañ leen jox espace fii ci SICAD ci kanam fële ngeen def fa ay pépinière boo ñu ko bëgg yaatoo yaatu ngir mën di ko gën a yaatal ndax li mu bëgg mooy autorité yi. ñu mën ko jënd tout au long te loolu agence bi war nañ si taxaw ak volontaires yi ñu waroon wut fas yéene naa aussi wut ay volontaires yu bare bare ñu jàppale agence bi si di jëmbat garab kenn ko ne ci gox ba nga dëkk mu yoon yi muy tam bépp place boo xam ne war nañ fa mën jëmbat ay garab ba ci tool yi ba ci fépp foo xam ne ci biir dëkk ci penc yi ba ci kanamu buntu kër yi war nañ di def ay garab ndax ku ne xam ne ne loolu màndargo bu rafet lay doon kon lii moo doon li nga xam ne tey mooy tàmbali bi waaye nag journée bi du journée tey rek dana nekk ay semaine dana nekk ay weer dana nekk at ba waxtu yu déwén su ko defee ñu xool ci at mi ñaata million ci ay garab la Sénégal jëmbat te ci géej gi dañ ci jëmbat ay garab parce que mangrove bi ni ngeen ko xamee loolu Aly Aïdar xam nañ ko fi bu baax a baax dañ koy jëmbat ngir loolu aussi dafa am lu muy joué si géej gi ak meññeent yu génn ci géej gi kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp nag ñu bokk ci combat bi mooy di jëmbat garab ngir suñu jàmm yaram jëmbat garab it également aussi ngir suñu wérgu yaram